asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu rabbi isaxli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk sénégalais yi nuy naa leen di leen siyaare te leen ñaanal jàmm seen mbokk la Medoune Diop wa tawaasaw bil xaq sama ga yi ngeen partagé ngeen partagé bu baax mu yaatu yaakaar naa ni nag dafa jot nag Sénégal nag comme mbërum làmb yi ni ñuy toogee di wax waaw di expliquer ak ñeneen ak ñeneen toog di wax seen bopp ñun nag dafa jot nag ñun tamit ñuy wax suñu bopp ngeen ñuy partager di ñu déglu ndax man damaa seetlu comme activiste malien yi ak ñeneen ak ñeneen maanaam bu ñuy def ay live wala dara da ngay gis ay mille personnes taxaw di leen seetaan mais ñun ñii tey nga xam ne di leen waxal lu am njariñ ci mbokk sénégalais yi man damaa mënul comprendre demagoo leen ñun ñii tey ku ci wax ba am deux cent personnes di la seetaan jàmbaar nga. war ngeen xoolaat seen bopp ngeen ubbiwaat seen xel dama ni leen partager ci sot la bokk dama ni leen war ngeen jël di ndéggatal nit ñi waxe ñuy dégg ndax li ñuy wax wax dof xam ngeen ko waxi nit xam ngeen ko. li ñuy wax di leen ko wax li leen di wax luy jariñ senegal loo xam ne pour seen intérêt la yéen ñuy bàyyi sunu yite ñuy dagg dara ci sunu temps temps dafa seer. ndax ku dem ba toog di wax nit ki balaa nga naan da ngay ngay yare na fekk nga yaru mbokk sénégalais yéen gënoo leen ñu ndey yéen ñu ñuy déglu yéen gënoo leen ñu baay bëgg-bëgg la ci réew mi réew mi ñun dañ koo bokk ànd xàccandoo dóorandoo nin ko bëggee di ci def sunuy yitte ak sunuy jéego yéen noonu ngeen ci war a def seen jéego ngeen di partage noonu ngeen ci war def seen i jéego ngeen di déglu nekkul ay nit yu am ay ñàkk jom wala dara mais dégg ngeen li leen di wax bu baax nit ñi ñu ngi wax luy jariñ ci société bi ay sëriñ di leen fen ay journaliste di leen fen youtube yi Dakar Buzz ak fu mu mënta doon yuutub yaa nga xam ne ñoo cay gën a bëri nit ñan lañ leen di tegal ay promoteur lu ràmb ñan lañ leen di tegal ñu ngi leen tegal ay nit yu ñàkk fayda di leen waxal lu ñàkk ful la ci seen réew amulu lu leen njariñ amul lu ci àdduna ci àllaaxira ay nit toog di leen wax lu am solo di leen waxal lu am solo ci seen réew boo demee dem ba xool ñi gën a jàmbaare ay deux cent personnes ñooy taxaw di la suivre wala di la déglu Dakar Buzz boo leen fa demee lam leen di wax maa ngi fa gis sànq Xaadim Samb lan la doon wax ay njàngatam ci làmb ji pour ëllëgi làmb ji pour làmb ji nan la war a demee pour làmb ji fan la war a toll wax fa wax yoo xam ni moom sunu góor googu waxoo fi dara lu am njariñ dara dara dara lan la leen may ana lan la leen may Dakar Buzz amul ku seeti seen seeni mag yi amul ñu seet seeti RTS bu demee ba jël kii amul lu muy seeti demul xool borom xam-xam ya TFM amuñu ñu ñuy seeti dem xooli borom xam-xam ya ca diine ñu wax leen ca diine wala dem xooli borom xam-xam ya ca wàllum politique ca wàllum lu nekk ci réew mi ëllëgi réew mi wala histoire réew mi lu ñu amal njariñ mboq sa dugub sa pétrole ba xale yi jàng ëllëg réew mi lu am fulla lu am fayda du leen wax lu am bopp du leen wax lu am genn ay paa yu ñàkk fayda ñu mel ni Xaadim Samb ay paa yu ñàkk fayda ñu mel ni ñoom Bekaay Mbay ñooña ñooña daal yéen gone yi ñàkk fayda yi yeen gone yi waye di yéen déglu ñooñu moo leen gën a tey ngeen déglu benn Medoune Diop wala ngeen déglu ay nit yoo xam ni dañuy ñëw di leen wax ci ëllëg réew mi di leen wax ci ay valeur ak jikko wala ngeen dem déglu sëriñ soo xam ne du leen wax lenn lu am njariñ ay fen rek ay fen rek ajjana ga bàmmeel ga ci loo xam ne du waxi nit ci ñaari pa ñetti pa dem na màkk mu ñëwaat ci ñaari paa ñetti paa yow booy bi ko yàpp yow nit nga est-ce nan nga mën a toogee ci jamono jii ci deux mille vingt deux bi ngeen di déglu ay nit mën a toog ci ay télé TFM amul lu leen jox wala ci journal yi wala YouTube ba ëpp doole amul lu leen wax lu dul maam Bamba wala maam Alaaji Malik wala maam Maoda wala maam maam maam maam maam maam maam boobu dafa doon dem Màkka ba muy dem Màkka dakaar la jóge ba mu jógee Dakar dafa jox benn paa doxaat ñaari paa egg Màkka ku ñu yàpp yéen ngeen koy mën a déglu ngeen mën a toog di yàq seen temps yu ñàkk fayda yooyu bu ngeen fa jógee wayu Waly Seck ba. bu ngeen fa jógee ca làmb jo comme ni leen ko waxee démb yu ñàkk fayda Paa Xaadim Samb xool leen bi mu leen may ci suba gi li ma dégg léegi partagé partagé partagé partagé ñun mille personnes di ñu seetaan doyut mille personnes di ñu seetaan ñun ñi nga xam ne ñu ngi toog di wax ëllëg mi mani la Sénégal demagut mille personnes ngay live mille personnes di la sànni ñu sànni la milliards yi milliards yi kër doyut partagé partagé sama gars yi mu yaatu am leen ful partage si sot la bokk yéen buñ leen gën nday gën leen baayi sama gars yi nit ñi jër seen live jëw di dagg seen yitte dagg seen lépp ñëw di ko def ci senegal fayoo ñu ñu ñaar dërëm ña nga xam ne luy saraxe askan rek la ñuy wax ñoon ngeen di partage di leen dégg yéen ñàkk jom dama góo leen waaye incha allahu rabbi lii billahi wallahi bu demee bare jamono ñëw ba ñu toog ñu ne baay foo tolloon ba senegal ñu leen di def nit euh, senegal fan nga toll ba senegal ñu takk leen jaam-jaam nga yeeweg foo tollu ma ne la demal ci sama live nga xool sa baay mi ngi nii doon wax ba mu doon wax ñeent fukki nit buñ ko deux cent personnes buñ ko partagé jàmbaar la ta dañ ko doon saaga ndey ñu ko doon saaga ndey ñu ngi ne takk seetu takk ñu seetu ay xaadim sàmbaki paa yi ñàkk fay di leen doon déglu seen doom dina leen cim am leen sulla am faydal sama gars partage sot la bokk lu waaye di wuyoo da koy nduroo ku bëgg réew mi boo gisee lu am njariñ nga gis lu ki partagel di déggatal gone yi ne leen dem leen déglu jin yi ngeen di table ronde ñuy waxtaan ngeen dem dugg ci maanaam Facebook bi wala ngeen dem dugg ci ca YouTube ba wala ngeen dem dugg ci ca booloom waxi kaay wala ngeen dem ca whatsapp ba wala ngeen dem ci seen gone yi nga xam ne ñu ngi toog di table ronde di waxtaan réew mi ginnaaw yàlla yombal na plateau bi. yàlla yombal na plateau bi ca whatsapp ba ñuy toog di indi samay xalaat ma naan dama ne yaa ngi ëllëg réew mi nun war a xalaat ba def réew mi groupe whatsapp ya fees tell ngeen di toog di ubbi seeni xel di déglonte di waxtaan di dialogue ndax li di def nii du perte temps. da ngeen a toog di waxtaane di table ronde di wax loo xam ne lu amal njariñ la njariñal réew mi pour waxtaan pour jéem a bennoo ñu ndaw ñi di communiquer nan lan mën a defaree suñu réew fan lan mën a jaar ba réew mi bu ma jaam gi dog fan lan mën a def ba hôpital yi mat nan lan mën a def ba lii ngeen dem bokk ci groupe yooyu di wax mais nekkul ñàkk jom ca TikTok ba benn booy jékki-jékki ragaju def yi fi dof wala benn booy tim benn bal daal di mbil bal bi kii mu ngeen di partagé wala kenn ñëw saaga na ndey kenn mu ngeen partagé nekk leen nit nekk leeni nit Abdou Ba ñu nit kontaan nañ ci yow sama waa ji dëgg yàlla yow mi ci gis sa bopp yow moomu yow yaay man man maa yow waa dama laa féetewoo fii rek ma ñëw wax ci Facebook bi waaye li ma gëm loolu nga gëm li tax kontaan ci man mooy man ak yow dañoo bokk benn idée benn gis-gis réew mi lañ bëgg mu defaru sama waaj sama waa ji réew mi lañ bëgg mu nekk nit ñu nekk nit sama waa lu baax lañ bëgg ci réew mi loo tax yow mii def sa commentaire yi Abdou Ba ne kontaan nga ci man man koo bëgg-bëgg na la ndax ñun ñoo bokki bëgg-bëgg ñun duñ bëgg ku bon nit ku nekk rek sa àndandoo rek maanaam kooku ngay bëgg ki nga xam ni li muy wax gis nga ci sa bopp nga sant ci sa bopp muy ëllëgi réew mi du lu ñàkk fayda du lu ñàkk fulla moo tax ñoo la sama waaju mbokk sénégalais yi dafa am tey lu ma tax a dugg mooy ci loo xam ni mooy sunu combat muy jaami réew mi ngeen partagé mu yaatu muy ëllëgi réew mi loolu moo tax ñu dugg tey ndax danoo gis yu metti yoo xamante ni si benn soxna soo am dama koo gis soxna si moom ci boppam mooy nettali nee na ba muy am doom deret ga mu yëg ci bopp ba mu daal di dof deret ga ba mu yégee ca bopp ba mu daal di dof mu doon affaire bu am solo ndeysaan youtube yi liggéey yooyu sax dama ci kontaan di xool situation doomu aadama yu xiif yi mar yi ay am ay problème maanaam ñu ñëw jàllale ko ci facebook bi di leen laaj ba pare teg ci ay waay ana defalkatu yàlla yi ana dimbali waatekat yi di dox ci wàllu social di yërëm faqiir ak miskin yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen waa lislaam dafa doon ñaan borom bi subhanahu nan ko yow yàlla yàlla nang ma may ma bëgg miskin yi di leen yërëm te ñaan googee dafa ànd ak jëf ak dox sunu combat yëpp yërma dew askan wi la génnut lii ndaw si ndeysaan bopp bi doom ja war a def bac doom ja ba mu waree def bac doom ja ba mu waree def bac après fekk yaay ja feebar boobu daal ko mu topp ci yaay ji di sonn si yaay ji nee na ndaw si si boppam mooy wax boppam nee na daan jékki-jékki sax def yaramu neen ñu génn ko ci kër ga di ko toroxal di ko sonal ndaw sa buur la nekk di sàkku ndimbal saan doom ja jàngam bag ba mu doon def li ko ko yàqal mooy dimbali yaay ja ndax amul kenn ku ko dimbali waa kër ga seetaan ko génne ko lii ñaaw na africain kañ ngeen di nekk nit doom adama bu demee ba xelam manqué ci manqué ci moom ndeysaan yaa ko war a tatafu yow yaa ko war a jàppale yow yaa war a yërëm mais nit ku am njariñ am xaalis daal am kii rek respecté ngeen ko nit ku nattu daal rek ngeen jël ko sànni ko fële nekkatul nit nekkatul sax doomu aadama far ngeen mën ko génne ci ay mbedd ci nit koo xam ne àndatul xelam mënalul boppam yéen ay mbokkam yéen a ko war a xëcc yéen ay mbokkam yéen a ko war a dimbali yéen a ko war a yërëm waaye amul loo leen def di ko génne lii ñaaw doom ja jàngam yàqu am góor goo xam ne dégg ko saan ba doom ji mu naan ko yow yaay damay sonn ci yow yaay ji di ko gërëm ne ko yàlla na nga am bak yàlla na nga am lii kontaan lool ci doom ja am ku ko dégg ndekete yow saay-saay la ci fim mu ko jaaree nañ bàyyi naxe ay waay yërmande yërmande yàlla sunu borom nee na ku yërëm ñi kaw suuf ki kaw asamaan yërëm leen lu waay def sa bopp ndaw sa ndeysaan kooka daat koy dégg na ko sa doom ji de may ma ko mu daal di tekk doom ja ba pare di ko toroxal loolu tax ñoo jóg waaye comme situation bi nga xam si moom la ndaw soosu toll ci ay ndimbal ñu koy laaj ci YouTube bi loolu tamit dama ci jaar nii rek lu tax mbokk sénégalais ndimbali moo doon lu bëri loo xam ne li am ci ay problème ci wàllu social Sénégal ci wàllu ñu laaj ndimbal da ngay gis kii di laaj kan moo kan nga war a dimbali mooy sa problème da ngay dégg kii na la bopp tànk bu metti la am tànk ba rek a nga gis kii tànk bi lan war a dagg nga gis kii problème bi loxo bi lan war a dagg kii nag moom bopp ba lan war a dagg kan ngay dimbali te yow mi koy bëggee dimbali yow fukki dërëm nga yor courant ba ndox ba yu baree bari yu la war yoo xamante ni si yow sa bok yow da nga ciy jéem rek da nga ciy jéem sa kem kàttan rek problème yi bëri trop problème yi bëri trop trop trop ci wàlluk ndimbal ci wàlluk social ci wàlluk li nga xam ne nit ñi ngi koy laaj ñun yooyu dañ ciy dox léegi yéen ñi nga xamante ni si yéen a ngi dégg loolu ñu wax leen tey benn ndaw soo xam ni lii moo ko dal kii lii moo ko dal bu leen xeeb bu leen xeeb dafa am fu ma jëm ndax seytaane mooy fowee nit ñi gis ngeen laajte yu bëri yi man sam bopp léeg dafa daf may daal li ma leen di wax nii ni waa ñii bu boo bëggee dimbali ñëpp moom foo jëm kii laaj na fukki kii laaj na kii ñëwaat na laaj na ñëwaat laaj na ku moytu dal naan sa bàyyil sax joxe loolu mbirum seytaane la mbirum seytaane la dal naan sa bàyyil joxe ndax ñii seen laajte yi ñii nan nan am fulla am fayda fàq yat jëlee fi sunu ñi nga sax xam ñoo sàcc suñuy 94 milliards ñi nga xam ne war nañ tabax hôpital après yow sa ku moytul sa yërmande saytaane mën na la fooyee daal ñu def ci attention bu baax a ba a baax. moo tax ak gëm-gëm am solo moo tax ak ragal yàlla am solo moo tax diine am solo moo tax def ngir yàlla am solo foofu laa jëm ak yéen sama gars yi mu yaatu point bi may wax dafa maa amal solo lool. ndax sama gars yi laajte yu bëri xam nga laajte yàlla rek mooy ki nga xam ni danga ko naan jox ma jox ma jox ma jox ma boo ko laajul sama mere la mais doomu aadama ti pepp suuf rek laa la suuf ñëwal nit que comme joxe nañ ci ay histoire yu bëri comme kenn ko sa waay yàlla rek mën a joxe man mënu la laaj di dëkk di laaj mu ne ko waaye laaj ma rek man yor naa ko mën naa ko mu ne ko léegi li ma bëgg heure ma ñëwee tibbal suuf rek jox ma yow tibbal suuf rek suuf si ngay tibb nii rek nga ne ma am waa bu ñëwee mu tibb suuf jox ko mu ñëwaat suba ne ko sa suuf laa bëgg mu tibb suuf jox ko ëllëg sa ba mu ñëwee daf ko ne merde boo bëgg tey suuf tibbal ko sa bopp sama waa ji man mënu ma nekk fii dina la tibbal suuf bis bu ne loolooy doomu aadama te loolu seytaan moo koy fawee nit moddu wax la. kon laajte yu bari yi day dem ba nga xam ni mën na am lu mu jur ci nit ki waaye yéen lan moo tax ñu war ñu jàngal diine l'islam gu wér lan moo tax tamit. seen sëriñ si ngeen xam ne duñu tus duñu dara ñi ngeen di tuddee ay sëriñ boog déggal ma naan baatu sëriñ da ngeen ma duñ dara duñ dara duñu dara ba fa dara nekk wallahi summa wallahi fu ma ko teg mooy buñ jàngaloon nit ñi ak gëm gu wér ban sëriñ nga fi gis muy toog di wax lan mooy njariñal joxe ca yàlla lan mooy njariñal defal yàlla ñoom dañ leen di wax njariñal adiya njariñal nga def loo xam ne pour ñoom pas njariñal pour ndaw si ma la wax nga déglu ko sama yaram daw ndax ban xalif wala ban sëriñ ngeen mës a dégg ñu toog di laajte social ci ci Sénégal dama leen di laaj maa ngi leen koy laaj taalibe yi kase laa fi gis ñooy toog di laajte ay social nit ki tànkam bëgg nañ ko dagg ñun taalibe yi nañu dajale mbokk murit yi maa ngi leen di woo mbokk Baay Faal yi maa ngi leen di woo mbokk Tijaan yi woo waa kër Alaaji Malik maa ngi leen di woo waa kër Baay maa woo sunu mbokk taalibe bii kat dafa am problème ba ñu ngi koy waaj a génne këram ñi ngi ko war a faji du xalifu euh, du xëylufu Canaba buy jóg di ko waxal du porte parole Canaba bu ko jóg di ko waxal du du xalifu Touba bu jóg di ko waxal du porte parole ba sëñ Basiru Mbàkke mooy jog di ko waxal du ku ma ci mën a andil nag benn problème yi am Touba yëpp yi am Touba ngeen andi ma benn yoon ne Serigne Bassirou moom Abdou Khadre génn na benn yoon di laajte social waa Touba te Touba ñi ngi fay laajte ay social social yan fay laajte taalibe murit ya nekk ca biir Touba mbokki Baye Fall ya nekk ca biir ñooñu ñoo jóg di laajteel seen mbokk ba am problème waaye du Serigne si ngeen demal ma kër Baye Niass waa kër Baye Niass ku ma ci mën a andil benn yoon ki réseaux sociaux yi sunu laajte ni nii muy ndimbal yi nga xam ne mi ngi am xiif mar gi am ci dëkk bi ak liy dal taalibe yi ngeen andil ma benn doomu Baay Ñas benn waa kër Baay Ñas bu mës a taxaw di laaj social pour ka nekk Kaolack am problème ñu war a dagg tànk ba ka nga xam ne amul lu mu lekk amul lu mu naan ñu ne kaay leen def social ñu dimbali kii waa kër Baay Ñas si taalibe ya ci boppam ñoom rek ñoom ñoo jóg di laajte social pour miskin yooyu. ngeen dem ci waawoon ngeen dégg xalif bi mu mës a toog ne xaar leen ñu toog ñu def social pour taalibe ya nekk Tiwaawoon ka am problème ordinance comme yi ma leen yi laaj ni ki ma leen waxal nii mu nekk buur wóor na man taalibe kenn la su nekkul taalibe Alaaji Malick dina nekk taalibe Serigne Touba wala mu nekk taalibe Baye Niass mais man mii nga xam ni gëw ma kenn si ñoo ñëpp may tudd amul ku ma ci yaakaar comme gëm seen façon gëm yi leen gëm jàppee leen yàlla ay mag ñu baax lan deenan yàlla na leen yàlla yërëm seen temps passé na man maa ngi sama temps suñ deewee lan def yàlla lan amal affaire man yàlla laa amal affaire ñoom amul yaaba gun ma mën a may amul bàkkaar bun ma mën a bun ma mën a yokk daara daara lan ma jariñut fekkente wun jamono kon bu fekkee sama côté sama position lii la waaye man maa ngi xeexal taalibe boobu nga xam ne moom bambala la yaakaar wala Maodo du génnut ci kenn ci ñooñu kaat gàlle yi ñooñu séddoo kaat gàlle yi ñoo waa gàlle Serigne Touba waa gàlle Alaaji Malick waa gàlle Baye ñas waa gàlle Limaamu ak waa gàlle fële booy Malika bi toog fii di xorom ndayu sëriñ si ngeen baal ma te wax dëgg yàlla bu goos boobu lu tax mu leen xorom xam na ko ki nga xam ni moo doon waan di bërëngu nekkoon uude yaakaar naa yéen a ngi gis laa bi di jàll waa jooju muy jàll uude boobu ngeen doon gis muy euh, muy muy muy bërëngu yor pu yorul woon puus puus booy Malika moo ko xeexal ba waa kii di ko jàppale. waa kër limaam ak ñooñu ñëw ñu def kii après utal ko bitig boo xamante ni si bitig la après bitig boobu mu ubbi noonu ci lay def ay uude di liggéey léegi mi ngi si jaamu booy Malika bi nga xam ne nii ngeen dafa réew nekk yi dafay nekk fii di saaga sëriñ si wala leen kooku xoolu yërmandeem googu moom taaliba boobu moom moo wax ci Facebook bi ba kooku ñu dimbali ko tey kooku buy sant du sant limaamu laay du sant xalifa limaamu laay booy Malika ji boppam mii xorom na ko sant moom lay sant. bu demee bay sant gannaaw alhamdulilah bu santee yàlla ba pare ne ne jërëjëfe booy Malika activiste kon booy yi gisee yëfi xaj yëfi golo yëfi imbécile yoo xamante ni si dañuy gis ñi ñuy tuddee ay nitu diine di ko def dañ koy dama ne leen dañ leen di ruux barke alquranu karim te lii leen dal seen dëggut ci joxe ci yoon yàlla rek laa leen wax joxe ci yoonu yàlla doy adiya sëriñ bi boo bëggee xaalis demal liggéey yi nga futteeku ba dëgër yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na yow sa taalibe moo la gën nee na loxo bi joxe moo gën loxo biy nangu loolu nga xam ko hadisu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu doon hadis bu wér ku ko weddi weddi nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow taalibe bii liggéey ñaq nga ñëw li nga ñaq nga ñëw jox ko sa sëriñ muy dundee sa ñaq yow yaa gën sa sëriñ kon koo gën nag wax dëgg yàlla bul yaakaar ci moom àjjana bul yaakaar ci moom àdduna àdduna gi yow yaa ko yor sama gars yi watawaasaw bil haqq watawaasaw seen caaxaan yi moo yàgg senegal quoi moo bari wax dëgg yàlla sam xol mooy jeex-jeex goo xam ne ba wax ji maanaam maanaam mooy loolu daal seen adiya yi ngeen war a sànni fële di dox social ndax taalibe yi rek ñooy toog fii di dox ay social laajte yi bëri na trop nit ñi toog fii di laaj di xiif di mar matut ci YouTube beek ak Facebook bi li fiy laaj ci ay ndimbal kenn xamul nu mu toll yéen sëriñ si ngeen ñaw toog fii jàngaloo leen ni ñu joxe fii sabilillahi njariñal joxe fii sabi joxe fii sabilillahi ak fii sabili xel dama ni leen xel li mu fekke mooy ndaw sële ku jara dimbali la ndaw sa ay ordonnance am la yor mënta faju bëri na fii ñoo xam si ñi ngeeg ay ordonnance yoo xam bëgg nañ faju mënuñu faju bëgg nañ fii ñoo ah, bëri na fii ñoo xamante ni si li leen dal ci ay feebar am nañu ci dee mais xaalis boobu ngeen di jël yéen sëriñ yéen taalibe yi di ko jox sunu sëriñ si te sëriñ si nekkul ñoom ñooy toog di jooyal benn faqir wala benn miskin xaalis boobu ngeen jox leen ñu jël ko tabax ko ay kër xaalis boobu ñu jël ko ñu lekk ko ñu naan ko yéen taalibe yi kon bu leen découragé ci joxe mais seen joxin moo bon moo salte ngeen fekk sëriñ bu am xaalis am otoom manqué wul dara ngeen bàyyi ki taxaw ci YouTube bi di laaj di jooy ngeen dem mën a jël fukki junni sëriñ ba keroog mi ngi laajte xaalis yàggul dara benn vingt millions taxaw vingt millions boo ngeen ko joxoon daw sale da ngeen ci am ngërëmal yàlla borom bi subhaanahu wa taala da ci am ngërëmal yàlla kon xeetu joxini moo bon sëriñ si ni ñuy ni xeetu joxin bi ñu leen jàngal seen bopp ñoom la ñuy laajteel ñoom seen bopp la ñuy lijjanti mais jàngale woon joxe fi sabilillah joxe yomb na def fi sabilillah yomb na dimbalante yomb na xool leen sama waay li nekk ci réseaux sociaux yi wallahi di am problème mais sëriñ si mën nañ récolter xaalis mais duñ ko récolter pour girimi man li may def nii ab sëriñ moo ko war a def ay nit toog nañ fii xiif nañ mar nañ sonn nañ ma ñëw teg ko sama waay lii lii waay lii waay lii luñ ragal li ñuy dox nii yërmande gi lan nga ciy tiit mais sëriñ si ñun suñ taalib sunu gaay yi ñu ngi fii di sonn ñun taalibee ñun ñooy laajteel nit ñi pour ñu faju ñi nga xam ne ñu ngi waaj a dagg seen tànk am ñoo xam sax dañuy bëgg a jàngi sax mënuñoo jàngi am ñoo xam ne am ñoo xam ne am ñoo xam ne xiif gi mar gi mbënd gi du benn yoon bu ab sëriñ jog di laajte pour mbënd ñii seen ndox taana kaay leen ñu ñëw ñu cotiser ñu jënd ay pompe yéen taalibe yi ab sëriñ génn muy sëriñ yëpp nag laa wax ba nekk Touba ak Njaareem ak Tiwaawoon ak euh, ñëpp laay wax du kenn ku ci génn ne ah mbokk yi gis nañ kat seen mbokk taalibe yi nekk ca dëkk sangam waa Géejawaay seen dëkk ba dafa taa yéen taalibe yi kaay leen ñu récolté xaalis ñu laajte adiya pour jàppale waa Géejawaay seen ndox bu taayoo seen mbokk taalibe pour ñu ngàccal leen seen ndox sëriñ bu ñëwee adiya la ñuy laaj adiya gim ñuy laaj pour 4-4 la ciy jënd adiya bim ñuy laaj pour këram pour boppam pour njabootam te manqué wul dara lii naxaate la lii du def ci yoonu yàlla def googu amulu leen benn njariñ te affaire sadit la nga gis ki soxla ki soxla koo xam ne dafa aajowoo kii boo ko dimbaliwul ñu dagg tànkam kii boo ko dimbaliwul mu jënd ordinance mu dee nga mën a fekk koo xam ne bu feebaree mën na jëndal boppam ordinance nga gi fekk koo xam ne am na oto yow moo la tane am na kër am na juróom-ñaari soxna manqué wul dara nga mën a fekk ki nga xam ni bu jëndul ordonnance tey ordonnance bi bu ko utiliser wut wala jabet bi bu dee jëlul pikiru jabet day dee nga mën a seetaan ko nga dem jox ko benn ko sant Mbàkke wala ko sant si wala ko sant Ñas seen sëriñ si waxuñu leen benn dëgg lii du joxam fi sabilillah ñoom seen bopp la nii di jënti lii ak nguuru la buur yent bi salaa fii di nguuru yent saa sam nekkul woon fii di dundee ci duune gi ci diine gi di ñëw di laaj nit ñi du liggéey du xëy miskin ya yoonam nekk ci ñu jokkoo ko moom salaa salaam mu capable lekk ko sax di bàyyi taalibe seen wax yëpp ngeen wax ay dóori kasala ay fen la comme bi ngeen naan ay sëriñ si léeg-léeg dañuy dimbaliwaat ak le ñuy defak ak du dëgg wallaahi du dëgg yéen yéen yéen li ngeen wax dimbaliwaat sëñ bi ñaata keesu daayira ñoo ñëw bu dee da ngeen dof ñun dofuñu ñaata keesu daayira ñoo ñëw laa leen di laaj Umar Thiam doomu yaay maa ngi bu baax a baax partagé doomu yaay mu yaatu keesu daayira ba ñoom yërmande dara amuñu ko ci dama ni leen jaaykatu gerte caaf ba sëriñ si xeebuñu seen xaalis seen addi yëg yi nañ organiser waat doxe bi sama gars yi pour pour ñu yërëm sunu askan taalibe bi lii dégg ci sa bopp yow mi feebar na dinga nga comprendre li ma lay wax ku mootul fi ngay jaaree xaaj ndax di nga dégg li ma la dégg dégg ndax yow fi nga toll yaa nga xam yow da ngay xam ne yow da ngaa yeyoo ndimbal ordonnance bi boo ko amul da ngay dee da ngay faatu ñu taa sa mboromu taalibe mën laa jéggi fële dix mille francs mën la jëndal ordinance sa mboromu taalibe ba tëb la dem jox sëñ ba cinquante mille francs CFA te yow dix mille francs rek jëndal na la sa ordinance boo xalaatee ba xalaataat nga ànd ak sa xel di nga xam ni sa sëriñ bi xaj la ñu jox ko ko te moom mën koy jox lenn li ci banque la koy dugal di la seetaan yow nga dee boo demee ñu ne benn taalibe wàññeeku na am leen fulla am leen seen fayda ngeen weq seen sëriñ si fële ngeen xam ne ñu dund nit yu baax du diine du lislaam du xel du lenn loo xam ne lu ko fekk la sëriñ si seen noggatu gi moo yàgg seen caaxaan moo doy sëkk seen tappale moo doy seen nappaate yi moo doy Baye Ousmane Dramé maa lay siyaar bu baax a baax sama gars yi di leen invité benn live incha allah man ak Baye Ousmane Dramé ñoo koy séq ñu def ñu bëgg ci def thème bu am solo ci 17 heures et demi Italie waaw ñu ngi koy defee ci OSR incha allahu rabbi ñu ngi ciy invité ñëpp mu doon sunu baay joo xam ni macha allah yal na ko yàlla sàmm waaw yal na ko yàlla aar taxawu ko mooy loolu sama gaay mooy loolu kon ñun nanu am xel ñu xam ni ab solidarité dafa am solo di dimbali waate dafa am solo mais li ngeen di def du dëgg du yoon ndax seen sëriñ est-ce que nga mën a nekk ak sa mbokk taalibe wax jii danaa ko répété waat nga mën a nekk ak sa mbokk taalibe yow bi déglu ma nga mën a nekk ak sa mbokk taalibe nga ne kii sa mbokkum taalibe la sa mbokkum taalibe ba dafa feebar ordonnance bi bu ko dul utiliser day de nga mën a tëb sa mbokkum taalibe boobu yow taalibe bi te ordonnance ba dix mille francs lay jar nga mën a jël cinquante mille francs waxuma la sëñ Muntaxa de waxuma la sëñ Bas de waxuma la waxuma la sëñ Mbay Si Mansoor de waxuma la sëriñ ki bi nekk Canaba de waxuma la sëriñ bu nekk ak koo ko ci mënta jox ci ñoom nga fekk nit ku xiif nit koo xam ne bu dee ordonnance mi bu ko lekkul dafay dee nga jox ko sëñ Muntaxa wala nga jox ko sëñ Mbay Si Mansour wala koo ko mënta jox daray ngërëmal yàlla amoo ko ci ku sadik nga ma dolli la ko ci ndax ñoom amuñu problème boo jox doo gis kuy dee nga teg ci bët mu war a ne kii lii sowee na ko bakkan dafa foor mu war na ni yow di euh, cinquante mille francs yi ngay joxe sëñ Muntaxa wala ma ngay joxe sëñ Bay Si Mansour wala ka ngay joxe ak ku mu mënta doon même bu doon sëñ Tuubaa sax mi ngi fekk Alaaji Maalik laa ñu nekk seen bopp nga war leen jox ñooñu cinquante mille yi nga leen war a jox nga gis koo xam ne kii nii trente mille francs CFA bu ko joxewul ci hôpital dañ naan tàppi tànkam dagg ko dañ ko war a dagg tànk bi dañ koy dagg ndax amul fay ay médecins soxor ñoo xam ne kii bu amul xaalis dañuy dagg tànk bi duñ ko faj nga gis kooku ñu war a dagg tànk bi nga bàyyi kooku di diyee noonu di souffrir sunu sëriñ si ñoom ñëpp cat ba cat amul kenn kuy toll foofu ban dagg tànkam am nañ lu fajoo seen compte banque mi ngi fees dell ak xaalis am nañ oto duñ manqué essence duñ manqué dara kër seen kër ñoo dàq sa kër ndey ñoom ay ci seize or la ñuy toog ñoom koo ci dem sunu xalif yi yëpp koo ci dem waxuma la seize kase mais seen kër yi ay seize or la am man moom wax dëgg fa yàlla. man de barki alquranu karim man siège ooru sëñ Muntaxa boobu ak bu sëñ Bay Si Mansour yooyu yàlla xam na ne loolu moom man man du ma ko def ci kër àdduna barki alquranu karim siège oor man du ma ci sama samay taalibe di xiif di mar sama waa ji seen moket ya seen gàlle yu naay ya dem ba gàlle am piscine seen gàllay dara manqué wut ñu dara nga mën a bàyyi ki ñuy dagg tànkam nga jël dem ne da ngay jox sëñ Mountakha Mbacké cinquante mille francs CFA wala da nga koy jox sëñ Mbaye Sy Mansour wala keneen amoo ci benn ngërëmal yàlla dama ne la yërmande yàlla dafa ne ku yërëm ñu ci kaw suuf ki ci kaw asamaan yërëm leen ka ñuy waaj a dagg tànkam ci trente mille CFA jox ko ko kooku moo ko gën a yeyoo ka nga xam ni amul lu mu fajoo jox ko ko mais ki nga xam ne amul problème bu bëggee faju faju wala bu bëggee faju hôpital lay indi biir këram nga bàyyi kële nga kii ko loolu soxor la sama waa ji yow bu la daloon ndax dana la neex ah. natt leen mbiri ci seen bopp wàññi leen addiya gi sëriñ si seen addiya yi ay teg dil kase la du dara du lislaam du xel ndax def dafa am loo xam ne réseaux sociaux yi ñuy laajte ñoo bari sama gars yi xanaa amoo leen yërmande dugg leen ci réseaux sociaux yi ñuy laajte da ngay dangay ngay bildaay da ngay joxe ba xaw a ku mootul tem nga découragé ndax ñiy laajte ñoo bëri kii tànk baa nga néewi kii tuñ yaa nga ki kii problème mu jalis la am kii problème mu ordonnance am ngeen mën a bàyyi seen mbokku taalibe di dee ak mar doo leen laajteel te du kenn nag du sëriñ Muntaxa Mbàkke bu ma mës a dégg wala sëriñ Mbay Si Mansour bu ma mës a dégg wala sëriñu Canaba ba mu mës a dégg wala sëriñu Këlëbe bu ma mës a dégg wallaahi ñu toog di laajteel askan wi benn nit ku xiif wala nit ku mar wala nit koo xam ne seen inondation nangu de seen kër ñu kii ko ñun rek ñu ñoo koy def ñun taalibe yi ba pare ñoom seen xaalis boobu suñu xaalis boobu ñu yor noonu ñu mënoon ci dimbali ñee ñoom léegi ñoom léegi ñoom léegi ñoo koy jël di ko kii taalibe yi dañu war a yeewu léegi ñu solidarité ñun ñun léegi jarul si ñuy jox sëriñ si même bu doon ñoom sax dañ leen koy jox ñoom buñ leen ko joxee ñu defaat ko ci askan wi sax jarul leen koy jox ndax problème bi ñun ay gone la ndaw mooy defar réew nañu def suñu benn kii boo xam ne ne li groupe bi groupe dimbali yàlla la groupe bii groupe defal yàlla la ñun ñu àndo ñun ñu defandal ko suñu bopp jarul sëñ bi sëñ bi du ki yoonam moom sëñ bi lan la war a def cotiser su ñuy def dara comme sëriñ si ñoom seen bopp li ñu war a def cotiser cotiser comme ñun ñu cotiser ñoom génne seen moonin ndax fii sabilillah ñëpp a ko bëgg mais sëriñ bu toog moom nga ñëw ñu lay jox xaalis loolu ay naxaate la pour nga dikki dikki ni pour lan yow xanaa bëggoo tuyaaba tuyaaba mooy nga fekk nit koo xam ne tànk bi ñu ngi koy bëgg a nga cotiser boo cotiser joxe ci yoonu yàlla laa la wax waxuma la addiya joxe ci yoonu yàlla laa leen wax bi ñu xam bi lislaam jàngale waxuma bi seen tarixa yi jàngale bi nga xam ne moom la lislaam jàngale mooy da ngay fekk comme lii nit ki tànkam mi ngi bëgg a dagg wala kii dafa feebar feebaru jalis nga ñëw xaalis nga jox ko ko. nga jël xaalis nga jox ko ko ndax man yi nii moom dafa am yoo xam sax matam madal carrément fii am na ay mbokkum baay faal yu ma xam ay mbokkum leneen wallahi ñu tollu diggante man sama bopp wax nag mooy dem nag ba tax ngay wax yi pour jàngale mais yàlla xam na ni jaru sax ci ay Facebook. ñu toll ay diggante war rabbil kaaba ma jël sama xaalis ma dimbali leen loolooy dimbali ñu toll diggante carrément carrément carrément diggante boo xam danoo soxla dimbal ma dimbal leen te seen sëriñ bu ma laajoon dërëm dërëm ci adiya damay bañ ndax man dal na ma dem naa ci benn jotaay dimbali naa ay mbokk taalibe laa mbokk taalibe yay joxe ma dimbali leen ci loo xam ne dañ ko aajowoo xam ne dëggantaan lii ak ndimbal la war rabbil kaaba tay taalibe leen <laughs> man faalewu leen xoolal ci ñooñu ci boppam ñoom ñu ñëw benn bis damaa mës a toog ci affaire ndimbal pour bu dee wax loolu comme te jàngal la Facebook ma ma ma ma ma dégagé ko ma mës a toog léegi gars yi ñëw di laajte pour fekk dana war a def màggalu soxna jaara fekk jour boobu maanaam jàngale lañ si jublu fekk jour boobu man maa ngi dem di foofu dugalukaay xaalis la man maa ngi dem am benn oustaz benn sëriñ boo xam si day jàngale daara mais sëriñ boobu am ji gone yi dañuy fay tey suba duñ fay ginnaaw suba duñ fay. léegi nag muy am problème mu daara man ma jël sama xaalis ma dugal ko senegal pour dimbali sëriñ daara boobu ma koy dugal léegi ñoom ñi toogoon foofu ci boppam di ma laaj ñama ah màggal soxna jaara ji adiyee soxna jaara la la laa bëgg a ma leen sa waay ah soxna jaara dërëm mënuma ko ci moom ndax soxna jaara li ngeen koy jox nii lii du soxna jaara moo koy jot lii du benn addiya soxna jaara lii li ngeen koy mooy après ngeen jël ko ngeen coob ko ngeen ñëw dajale ko ngeen dem ngeen coob ko ngeen jënd ci ay ginaar mais lii moom bu leen na soxna jaara soxna jaara moom lii jotul xaalis bi xaalis bi yéen a koy jël ngeen noosee ko te xaalis bi ngeen jëloon ko ngeen dajale ko ngeen xool kenn kun bëgg a dagg tànkam ngeen joxe ko sarexe ko ngir soxna jaara ndax loolu da koy fekk si comme sadaqatul jaara yi loolu bokk na ci comme soxna jaara tey ngeen bëgg ko laajteel wala ngeen bëgg a laajteel sëñ Tuubaa mën nga jël nga ne man def li lii mais yéene sarax bii ku dee mën nga ko saraxeel nga ne yéene sarax bii ma def nii fekk ka nekk ci hôpital ñuy waaj a dagg tànkam def naa ko mais def naa ko pour saraxeel ko Serigne Touba wala pour saraxeel ko Alaaji Malick wala pour saraxeel ko sama baay te sax balaa ngaa saraxeel baayu jàmbur it mbay ci sa wu tànk da ngay saraxeel sa papa ba pare bu dee sa papa dafa dee balaa ngaa saraxeel maamu mu Mountakha wala maamu Serigne Mbaye Sy Mansour Alaaji Malick saraxeelal sa papa yow ba pare. sa baay moo ci gën a yay balaa ngaa saraxel baayu kenn saraxel sa baay mi nga xam ne moo la dimbali ngeen fekk dund ñee dundoo leen fekkente wu leen jamono mais sa papa dafa sonn ci yow sa papa yóbbu na la école wala sa ndey faatu sa ndey ak li mu daj ci yëpp balaa ngaa saraxel kenn balaa ngaa saraxel maamu jàmbur fekk yow jóob nga sant balaa ngaa saraxel ku sant Mbàkke maam ko sant Mbàkke wala maam ko sant si saraxelel sa sa maam ba pare yow ndax diw baax na mbaa mbaa mbokk yaakaar loolu samba alaar la ma lànk ne leen joxe ma ga yi nekk fa di kii noonu eh, te yàlla xam na ni dërëm bi ma doon laaj une euro ban ma doon laaj une ero lan ma doon laaj une euro boobu ñu ma doon laaj pour soxna jaara waa rabbil kaaba keneen am na loo xam ne nit fu mu doon toll tey mu laaj ma cinq euro ma jox ko ko te jël naa lu ëpp loolu ma def ko fii sabilillah waa sama joxe boobu ñoom ginaar ginu nu jël lekk ko ñu toog ci jotaay lekk ko xas benn soxna jaara jotu ko du du soxna jaara du loolu ay noos la ñoom xaalis bi ne mais xaalis ba soxna jaara jotu ko du ci soxna jaara la jëm du si soxna jaara la jëm mais man mi jël nag nit ki dundu waxuma la ñu dem de ba pare ñu dem moom ñaan leen gën a kii man mi fekk kiy dund ustaas biy dundu ay problème xale war a jàng xool leen lan li nga sowe ustaas ba dina mën a tenir benn gone goo xam ne gone gii dana jàng sax fayut woon mais Medoune Diop dugalal na ma weccat keneen dugalal na ma weccat te ni ma ko dugal loolu la kenn léegi jàppale nga ko yow ci daara ba sowee ki nga xam ni waroon na bàyyi doomam muy taxawaal ci mbedd bi ndax bu fayut oustaz ba dàqoon ko ndax tële wala dara mu dàq ko xale boobu mën na dem bay taxawaalu am jot bu amee jot mën na dugg ci banditisme mën na dugg ci lii lan moo ci ëpp njariñ ci société bi dee leen wax ak ñuy dund te bàyyi ñi dee ñi dee ñaan lan gën a soxla boo yërëm nga fekk ki nga xam ne dafa dafay dund nii yërëmoo ko nga dem ca ña dee wax dëgg yàlla ban xeetu yërmande la ñu waxante dëgg te yàlla tax ragal leen yàlla di fay naar bi xoromam man wàllug social man daf ma neex man wàllug dimbalante daf ma neex dama ni leen Sénégal gii yéen jullit ñi ku bu ngeen amoon pas-pas bu wér ngeen am gëm àllaaxira pour di leen wax ci joxe ci yoonu yàlla ni mu mel joxe ci yoonu yàlla du ay adiya ndax adiya yi ngeen jox sëriñ si muy adiya yi sëriñ Tuubaa ak adiya ma eggul ci sëriñ Tuubaa eggul ci El Hadj Malick ngeen bàyyi ci xel tamit. bu leen tooñ sëñ Touba alaaji Malick sëñ Touba ak alaaji Malick yow man xiyaam dara ngeen sequt ak ñoom defuñu leen dara sama waa ndax nit kat man kat du ma du ma dem ma génn àdduna nekkatuma fi ay nit ñëw jël seen i tàppale teg ko sama kaw may dee dee yow ma xam yàlla dima ma ko këpp déedéet fekkeewu ma man defuma man yëguma yéen a jël seen i mbir teg ko sama kii teg ko sama tur loolu lu sama yoon boo ñëwee naan ma yow ma xiyaam lii dama laa xam dama ko seq ak yow moo tax bu leen fontoo Serigne Touba bu leen fontoo alaam seen yii dañ cee nekku seen tappale yi seen caaxaan yi léegi nag adiya gi ngeen jox Serigne si ñoom fan nan la ci Serigne Touba jotee laa laaj wala El Hadj Malick wala Baye Niass loolu rek laa leen di laaj. loolu rek laa leen nan lañ ciy jotee mais adiya Serigne Touba <laughs> yow kay adiya gi ki nga ko jox kooku nga ko jox kooku ci boppam moom bul ne maamam bul fa tudd maamam Serigne Touba El Hadj Malick Baye Niass li maam seen yoon nekku ci bu leen fa tudd maami neel kii adiya bi ma jox. bu fekkee Kara nga ko jox bu fekkee sëñ Bas nga ko jox bu fekkee sëñ Bay si maaso nga ñoom la yam bu fekkee sëriñu kii boobu si ñoom la yam yow ñoom nga ko jox addi da nga naan addi yooyu sëñ Mansour mais bul ci tudd sëñ Touba ngir yàlla bul ci tudd El Hadj Malick bul ci tudd Baye Niass koo ci tudd tooñ ko bul ne addi yooyu sëñ Touba bu dee ay addi yooyu sëñ Modou Kara neel addi bi sëñ Modou Kara nga ko jox yow yaak sëñ Modou Kara yéen mais génn ci sëñ Touba ndax après sëñ Modou Kara moom moo ci dawal oto du sëñ Touba moo ca fay moo ca tabax këram moo ca lekk ginaar takk ci ay jongama ñoom ñëpp nag ku ci nekk rek ni ma ko waxee ci moom noonu la demee ci sëñ Bay Simaam noonu la demee ci adiya gi ngeen di jox ne neel adiya kan ko jox te ngeen bàyyi sunu maam yi ngeen di tooñ sunu maam yi yaakaar naa ne ñoom buñ fi nekkoon adiya gii nga xam ne yéen a ngi koy laaj gi ñoom dañ koy delloo ca jaam ya waaye duñ ñëw ndax bamba moom yéen ko ko setal ci yeneen amul woon poos amul woon poos yéen a ko waaye sëriñ si ay compte banque lañ yor xaalis bi xajut ci seen i li ñuy jël ci adiya ak li ñuy encaissé seen poos xam ngeen ne xaju fa ca banque ya leen koy jël dugal ko ñu dee seen doom doonu ko ci ciy soxnaak lii sant mbake taxul a baax sant mbake taxul a bon ay sant moom du dara sant sant rek la gis ngeen Mbàkke Mbàkke yuy gees gis ngeen Mbàkke Mbàkke buy sàcc gis ngeen Mbàkke Mbàkke buy njaaloo nangu jabaru jàmbur lu nekk kon même sañ bi ngay jox adiya après ñoom bu ñu deewee nii comme sun sun paa yi dee nañ fi bàyyi fi ay doomi kàccoor am na ñu ci baax nag am na ñu ci bon nekki leen nit sëriñ si dañ ñoo xoqatal xoqatal ba nga xam ni allahu akbar agresseur pire pire mo ñeenti gàlle yi quoi lu yàqu Sénégal lu yàqu Sénégal mi ngi jógee suñu ñeenti gàlle yi barke alquranu karim tàqaloo askan wi bañante bi noonante bi boo ne qaala lahu qaala rasul da ngaa dingat bàyñas laa di rek allah ji maa di ñeenti gàll yii fekk demuñu ba dégager leen fële jàppee leen ci société bi ne ay citoyen lañ ay nit lañ mbàkke bu nekk nit ñu ànd ak yow mbake mbàkke buy wax dëgg ñu jox la loxo ne la ah mbàkke jërëjëf yow de roy nga sa maam sëñ Tuubaa si si buy wax waxi nit di dundu dundu nit di jubal ñu jox la loxo ah si kii nga ku ci nekk kàccoor ñu tulli la comme ni ñuy tullee jóob jóob ku sàcc ñu jàpp la ne la ràpp kasa ba monete barke alxuraan monete la ku ci def loo xam ne kii ñun wulli la wulli amul mbàkke laa sant amul si barke barki alxuraanul karim man de lii man maa leen koy wax man <laughs> allahu akbar lii moo tax mënuma politique li ma doon wax <laughs> ci Ousmane Sonko maa yaay bàyyi Pastef arrangé wu ma leen laaj bu ma defaloon Ousmane Sonko rek ma naan leen man man su ma nekkoon kenn koo xam ne maanaam comme genre ay position ñoom Sonko ma nekk kii dara comme daal ma doon politique ak yooyu seen sëriñ si fi ma leen teg yàlla xam ne waxuma leen man maay dem si ñoom de waaye ki gën a ñàkk solo su ma naroon dem ba nara dem ci seen sëriñ si <laughs> muy Touba ak Tivaouane ak Niassène na fépp ki gën a ñàkk fayda ci gouvernement bi ki ki gën a tuuti kooku laa yóbbante foofu tolluñu ma fenn fenn lan ma tollut ndax dañoo amut yéen ba ne dëgguwuñ seen wax yi waxi biir néeg la duñ wax mukk nit ku dëggu da ngay taxaw di wax dëgg publiquement ñëw yëpp <laughs> di ko dégg kenn mënu leen takk yéen su ma nekkoon président seen sëriñ si xalifi laay tàmbalee di di tëj barki alxuraan de damay gis ñu jàpp kenn xam nga seen doom yi dañuy sàcc wala def benn affaire gars yi fi mu toll nii ne la kii damay dem bàyyi ba benn kenn sàcc rek ba benn xalif joxe ci sa kii seen xalif bi laay monété monété laa koy def monété dinaa fi dóor mbàkke mbàkke bu mu tëdd ba talli ñaret wala ma jàpp fi doomu alaaji maalik dóora dóora dóor bu wulli ba doomu alaaji maalik bu sàcc mu ñëw sa sàcc amul foo ko teg lu dul Maodo moy sama maam ma dala kaay yow mii da ngaa yëpp Maodo nag sa maam woon ci sa caaxaan yeeg sa tappale dinaa la duuru duur ba ngay bëgg a dee mbàkke mbàkke bu fa sàcc mooy xelif ngaak mooy loo mënta doon barki alquran dama lay cawiyat sëñ Modou Kara moom ca kaso ba ràpp te ay dossier dañ ko war a lijjanti nag sama gars man damay invité ñi nga xam ni sëñ Modou Kara ja jàpp boo yooyu mu rey ba ñu suul leen maa ngi sàkku yéen bu ngeen déggee sama live Medoune Diop Watawassy bi yàq sama numéro ba ngi fii yéen ngeen dugg seen waajur yu dugg pour seen doom yooyu ñu rey sëñ Modou Kara Mbacké rey ñu ñëw bàyyi loolu dossier bi noon dañ ko war a lijjanti xeex ko seen sëriñ su doon nit doon nit doon nit doon nit man suma suma nekkoon kii am ndomba tànk <laughs> wala dara barki alxo sëriñ si may tëj moom dana bari moom Kara ma nga ca kaso ba moom kooku moom kooku dama koy tëj barki alxuraan dama koy tëj dama koy tëj ràpp ci kaso ba taalibe bu dof dof lu ba génn ba ñëw ba naan ma Kara sama sëriñ bii nga teg dama lay noq noq noq ba nga kii ma noq la ca kaso ba amoo leen fit problème bi mooy da ngeen di dof dof lu yàq nit ñi mais yéen gendarmerie Macky Sall yi li mu def ci couvre-feu bi lu tax Macky Sall moo tax seen jiit yi ku ci gën a nekk golo rek nga nekk xaj la Macky Sall lan moo tax ñëwul comme sëñ Modou Kara lim def dossier ba mu ñëw laaj ko léegi couvre-feu ba xam nga ñoo ko tey dil la ndax ñoom ñoo yam mbur foofu ko fëriñ dil la lan moo tax Macky Sall ñëwul loolu Modou Kara def mu yónni ay gendarmerie ñu dem jël ko fekk foofu jagat jagat ak mën a ko yóbbu ko tëj ko defu ko defu ba pare eh, eh, ba ngeen bëggee génn yéen taalibe yi nervi yi ba nu génnee ba ngeen bëggee génn di kii Macky Sall couvre-feu bi ay gendarmerie leneen boole kenn génnut dañ leen duma loolu la waroon def jël ay jël ay kii taalibe bu dof dof lu ñu dóor la ba nga wulli la ba nga nooy nepp sëriñ ba bu ñëwee waxte wala xalif ba ku mu mënta doon nga xëcc xalif ba wulli ko ba mu nooy nepp barki alxuraan di ngeen nekk ni yéen ay seen président ñëwagut seen président moom ñëwagul ndax askan wi yéen a bëgg fen yéen a bëgg naxe yéen a ñu yàpp moo tax amagoo leen président seen président moom amagut senegal ama gisaguma ko ndax li amul kenn ku ko xalaat moo tax ñii danoo doxul yërmandew askan wi moo tax yéen taalibe yi nga xamante ni si yéen a ngi dem di jox euh, adiya sëñ Baye Mansour di jël di jox adiya sëñ Mountakha mbake di jox adiya sëriñu canaba ki canaba boobu moom nee na Macky Sall la àndal léegi ndax kat Macky Sall mi ngi ko ceebal ñu koy jox xaalis moom sëriñu canaba boobu loolu jaral na ko mu saraxe askanam sëriñu <laughs> ñaseen boobu waa kër ñas kumba Abdallah taxaw na fii keroog récolté na vingt millions wallahi vingt millions yooyu ngeen jëloon ci yu doggu leen ci youtube bi ngeen jox ko seen mbokk taalibe yi ku mootul kooga boo ko waxee looy waat mu ne la barki baay barki ñas kumba abdallah loolu la lay waatal sa mbokk taalibe boobu nga joxoon ko moo gën a yaay nga jox ko sëñ boobu nga amul benn problème te day soos soosaat ñoom ñëpp bu ñu demee Macky Sall mboq mi dugub bii Macky Sall koo leen yàpp sëriñ si koo leen yàpp seen ñeenti gàll yi moom wax dëgg yàlla seen cere ji de <laughs> allahu akbar sëriñ si ay tayran ababil ngeen ko seqal li leen di dal moo seddut seen cere ji wallaahi dana ci xëpp suuf yéen waa ahlu Mbàkke yéen waa ahlu si yéen waa ahlu Baay Ñas yéen waa ahlu Limaamu Laay naxaate rek ngeen fi nekke ma bu ma ñëwee ci côté limaamu moom <laughs> koo leen yàpp seen maam ji ngeen di wax nii naan mooy Mahdiyu mahdi yu googee ngeen ñu wax noonu bokkut ak bu ñu mahdi yu bu yonent bi salaa loolu seen mahdi yu bopp la yéen yonent bi salaa salaam dafa ne mahdi yu bakkan bi day gudd te yéen mahdi yu bii ngeen di wax bakkan bi daa tàpp yonent bi salaa salaam nee na dafa xees seen mahdi yu bi daa ñuul kuk ban mahdi yu ngeen ñu wax bu dee ñu fontoo koleen leen yab ay maam puus géej ak li maamoo puus géej géej ñun mënuñu puus géej ñun waxi nit leen bëgg a dégg bu dee day pousse géej kay yéen doom yi fi nekk kay mbënd dëkk bi daa am inondation dëkk bi daa am mbënd yéen kay ngacc leen ngacc comme seen maama pousse géej am baatin ba tollu fii kay yéen kay waruñu sonn ci inondation yéen yéen xëcc leen ndoom bi ngeen dugal ko ci géej gi comme te yéen mënoo leen pousse géej seen maama pousse géej bu leen ñu tànqal yen mënoo leen ndax bu dee bu dee xam naa ne limaama moom comme te moo pousse géej ga maam limaama bu nekkoon fii Sénégal tey jii tey xam naa ni moom problème mu inondation moom mu ko am moom ndoxitaa yëpp lay ñëw rek puus ko mu dem ca géej kenn du sonn bu waa kon laajee kon wax dëgg yàlla macha allah gàcce ma ñu kontaan ci yéen ndax seen maam puus na géej ga nit ña dëkk waaye nag géej ga nag dafa am lu ci raxaat ndax ndox bi daa danoo amaat géej ndox bi taw léegi ngacci leen ko ngacci leen ko yéen sët si koo leen yàpp bu ngeen demee mën a ngacc géej gi daal incha allah di ngeen bëri taalibe moom gars yi dana képp koo leen ngaccal to këram kër yi taa yi inondation yi koo leen ci ngaccal rek moom incha allah moom ñu nekk seen taalibe pare nañ ngacc leen ndox bi yéen ngacc yéen féete woo leen yéen waa moom féete yéen yéen moom yéen moom daf seen seen kaama moo yomb seen maam seen maama pus ci maam moo ci géej gi léegi yéen benn sas rek lañ leen sas seen maam mi puus géej gi yéen ngaccal leen ñu ndox bi puus leen ndox bi mu dem ci géej gi comme te ay borom baati ngeen lii daal maa ngi leen koy waxal sunu sëriñ si ku ci dàq tappale sa morom nga ne kii ndax bu dee mahdi yu lii moo tax ñu ne bu kenn bu kenn xaala laaw xaala rasul des koy tere bu mahdi yu bi leen di wax wallahi du mahdi yu bii la yent salaa salaam yent salaa salaam yéen nag yéenay xool nag yéenay xool dañuy wax dëgg yàlla gi rek mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi ku mu neex gëm ma ku mu neex weddi ma yaa xam waaye wax yent salaa salaam ndax di ngeen ko jëndee wax maam li maamu maa sallallahu alayhi wa sallam nee na mahdi yu bakkan bi day gudd mahdi yu nday ja Fatima lay tudd mu ne ci descend Fatima lay bokk moom mahdi yu yentu sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax mu ne mahdi yi boobu dafay xees nee na day nduróog moom mu ne mahdi yi boobu bakkan bi dafay gudd yentu sallallahu alayhi wa sallam wax ñu misaalam ba wax ñu melokaanam nee na dafay xees karaw ga day gudd wax ñu ni mel Sénégal ku ñu léegi mahdi bii ñëw léegi moom bakkan bi gàtt contraire mahdi non bakkan bi daa tàpp te yéen tamit saa ne ni mahdi bakkan bi daa gudd yéen tamit ni mahdi bee dafa xees mahdi bii ñëw ñuul kukk ci descend Fatima la la kii ndeyam Fatima lay tudd mahdi yu ndeyam yaakaar naa Kumba tudd koo leen yab koo leen yab nekk nit wala ngeen dellu ci texte léegi nag lii moo tax Matar Sarr. kalaasu setan googu bu ngeen leen di déglu ustaasu fenkat yooyu barke yàlla di ngeen gën a léegi el seex léegi ñëw na moom it di wata woo mahdi yu léegi yéen pourquoi ni ngeen ne toog samp seen maam seen kat gàlla yooyu léegi ngeen dem ba ba siis sax ne léegi keneen du fi toog tam samp tamit tarixam el seex dafa génn fii samp tari tarixam ne moomit mooy mahdi yu ni ngeen ko defee el seex ne mooy mahdi yu moom it ñëw ñuul kuk bakkan ba duuf lex ya duuf mu xëy rek ne mooy Mahdi yu mais pourquoi Matar Sarr mën a ñëw koo yab di dal Mahdi yu bee léegi dalul Mahdi bu nekk fee te Mahdi bu nekk fee yoof ñi ko Mahdi yu bii defee benn rek la kii dafa yeewu ne mooy Mahdi ne yenente la yàllaa ko yónni eh, el Cheikh am na droit muy yeewu ne moom it yàllaa ko yónni mooy Mahdi yu léegi ñu bëgg a dàq Mahdi bi dàq ma teg ko ci bakkan ndax kee amut nit seen ànduk fen yi lii moo yàq réew mi yow la ngay wax ci kee moo dal kële léegi kee gis nga ni el seex bee amul nit amul ay mbooloo moo tax li nga ñeme ko dal waa kër limaamu laay doo leen dal te li nga wax lépp moo ne dëgg la ci el seex na nga ko waxee mu nekk ci dëgg si ah, el seex loola maam limaamu moo ko fi njëkk fuuf woowoo ko ci maam laaw Sénégal dëkkub fen ak seen fen yi nag mooy jeex de sëriñ si problème bi ngeen am seen cere si gis ngeen cere mbuum cereeg mbuum maanaam boo ci xëppee suuf dina neex a lekk ba tey yéen gone pour ngeen xam li ma leen wax laaj leen ko mag ñi mais gis ngeen cere cere yàpp cere yàpp boo ci xëppee suuf kenn mëntu ko lekk tuur rek sëriñ si cere yàpp lañ yor du cereeg mbuum ndax cereeg mbuum sax mën nga ko kii sas ko ba lekk ko mais gis ngeen cere yàpp buñ xëpp cere buñ xëpp suuf kenn mënatu ko lekk lii moo dal sëriñ si sëriñ si seen cere yàpp googee man de Medoune Diop maa ngi yor sama paan jiiji nekk fële moom it yor paanam Moussa Camara yor paanam boole koog yàlla boole na ay tayran ababil puus ngeen Kaaba ga xëcc ngeen Mahdi yu ca ñëwagut indi ngeen fi dajjal dajjal lañ fi gisagul nag dajjal ana dajjal ana dajjal laa leen di laaj yéen Sénégal nan ngeen mënee gëm Mahdi nekk fi ngeen di topp keneen ku dul Mahdi yu <laughs> allahu akbar non Sénégal moo neex. laa hawla wala quwwata illa billah lu leen wax xeeb nañ ko lu leen wax xeeb nañ ko sama waay joxe fi sabilillahi am solo waxtaan wi loolu moo ko tax a jóg muy joxe fi sabilillahi seen xaalis bi nga xam ne yéen a ñëw di ko jox suñu sëriñ si jox leen ko seen mbokk yi sonn yi mbokk taalibe yi ngeen ñëw dégloo xel te bañ ñoo dégloo xool ni maanaam dafa am loo xam du ay fit du ay guerrier mais yàlla sunu borom mooy nam mu defal mbir moo tax mu yónni gone yi li war na leen jaaxal na war na leen jaaxal ndax problème bi sëriñ si danoo xoqalaate tiitalaate nappaate nappaate goo xam ne duñ def yoon duñ def dëgg wallaahi ab sëriñ mooy toog fii mooy comme li ma leen waye leen ab sëriñ mooy toog fii ni tey toog fii ne sëriñ Tuubaa yàlla la ñëpp ne eskay Maodo Malick yàlla la ñëpp ne est-ce que diw sangam yàlla la ñëpp ne est-ce que nga taxaw ne leen du dëgg yàlla kenn la jaasi tariqa bi ñëw dal sa kaw. jaasi tarixa bi ñëw sa dal sa kaw léegi nag ñu tiital askan wi ba nga xam ne léegi ku ko def rek jaasi tarixa boobu lan ragal mais seen jaasi tarixa boobu la ñuy jël lem ko. seen nitu tarixa yooyu seen doom yi wër seen ginnaaw buñ toogee fi mu toll nii ñu ngi seetlu ne léegi wax dëgg yàlla yéen a sëñ bi nag dafa sadi utiliser le seen moyen sama gars yi déglu sama laaj bi bu baax li ma wax ndax du la si gudd yow sa mbokkum taalibe bi nekk fii sonn booy bëggatee sama waay dañ waxante dëgg waay sa mbokkum taalibe nekk fii sonn booy bëgg a kii bu amut xoolal trois cent mille CFA bu ko amut dañuy dagg tànk bi dañuy dagg tànk sama waay sama waay kii feebaru jalis bii bu amul xaalis bu faj xoolal bu amul ordonnance bi day dee day dee day dee nga mën a bàyyi kooku dem ña sant Mbàkke wala si wala ñas ñeenti gàlla yooyu ci koo xam ni moom bu feebaree am na lu mu fajoo wala hopital moo koy fekk si gàlleem moom bu añee dina reer ndékkeem day tegu ta palaaya gën a baax lay lekk yow mënuloo am benn soxna mënuloo am ñaari soxna ñoom ñu am lu mat fukki soxna manqué wuñ dara nga mën a jël sa cinquante mille yoo xam ne mën nga ko jox tey ki nga xam ni bu amul ordonnance day dee nga dem jox ko kale naan adiya adiya googee defal nañ leen ci ay leeral moo tax ñaan la jàng day yàq taalibe adiya moo nekk tuyaaba moo nekk tuyaaba nit amu ko moo nekk tuyaaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ak yiw ngay xalaat ak mbaax lu sëriñ Bamba baax baax lu El Hadj Malick baax baax lu Baye Niass baax baax lu Limaamu Laay baax baax dama ni leen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du seen morom képp ko gëm ni ma sëñ Touba moo gën Muhammad wala El Hadj Malick wala Baye Niass kooku ku réer nga ko sànku nga demal uti beneen diina bu dul diina lislaam ku la koy jàngal mi ngi lay jàngali fenn kooku sallallahu alayhi wa sallam moo leen ëpp daraja fa yàlla mais moo nekk tuyaaba sallallahu alayhi wa sallam amu ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul moo nekk comme nga defel ko dara moom mu fay la moom ci boppam sa laasal mu bindal tuyaaba déedéet loolu ci loxoy yàlla la nekk léegi sëñ bi lan la lay fayee bàyyi taxu Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa defal Muhammad sallallahu bu dee adiya yi ngeen wax ak liggéey dafa liggéeyal Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax daf ko doon défendre pour nit ñi bu ko kenn laal ne ki ku ko laal laal ma. yow yi nga may wax yi yëpp yow yow man ab taaliba laa ab ndongo laa donte sax du ma tux yàmba mais même bu ma doon tux yàmba yow sëriñ bi tux yàmba ki tuddoo Bamba wala Maodo wala kii ba pare di tuxi bon di naan ay wayn ñooñ nga war a waxal ñu bàyyi ndax ñoom ay exemplaire lan ay jàngalekat lan ay sëriñ lan buñ tuxee yàmba di daganal yàmba gi loolu mooy li bon ñooñu nga war a waxal paaman mooy loolu sama gaay mu nekk tuyaaba gi kon Muhammad sallallahu alayhi wasallam amu ko kon yow kon koo bayal Muhammad sallallahu alayhi wasallam bàyyi taxam ba mu ko liggéeyalee mooy di ko défendre kenn du ko tudd kenn du ko laal di def lu mu mën ci ci ci ci baytaxam moom sallallahu alayhi wasallam euh, baytaxam di ko defal sallallahu alayhi wasallam ba mu deewee sallallahu alayhi wasallam dafa bëggoon mu dem àjjana yàlla ne ko déedéet kon yow loo mënta liggéeyal sëñ bi adiya goo ko mënta jox ak loo ko mënta jox boo di fut lu baax di bokkaale yàlla nekk ci lu bon dama ni la Muhammad sallallahu alayhi wasallam bul ko weccee baay maam borom Tuuba mënu la yóbbu fenn moom sëñ bi fenn fenn amul benn njariñ bu ñu amal du ci àllaaxira léegi ci àdduna ban ban njariñ la amal amalu la njariñ yéen yéenay xeexal sëñ bi sëñ bi nee ngeen yéen sëñ bi yéen da ngeen àndule seen xel utiliser leen seen moyen sama gaay yéen nee ngeen sëriñ si ñoom ñoo ñu gën quoi ñoom dunu ñun ñoom dun ay nit sëriñ si ñooñu ñu ëpp baatin sëriñ si ñoo ñu gën a xam ñoo ñu gën a egg ci yàlla. ñoom lu ñu am ñun amuñu ko ñoom xam nañ lépp ay boromi baatin lan waa léegi dama leen di laaj ñoom bu fekkee ñoom xam nañ lépp mën nañ lépp ñu ëpp baatin yéen lu tax ngeen leen di saagaal ci Facebook yi lu tax doo leen bàyyi sëriñ si xulóol seen bopp lu tax doo leen bàyyi sëriñ si soppi ñuy golo wala muus comme te kay ñoom ñoom ñoom duñ yéen ñoom xam nañ lépp mën nañ lépp kay nan nan ñu rey mais jarut yéen taalibe ngeen leen di xeexal yéen a leen di xulóol yéen leen di jox ñuy lekk yéen a leen di joxel dépense yéen leen di xeexal yéen leen di waxal yéen a leen di saagaal wallaahi yéen a sonn utiliser leen seen xel ragal leen yàlla ragal leen yàlla borom bi subhaanahu wa taala te ngeen di consommer wax yi di si jéem a jariñu bu baax baax pour loo xam ne dina leen jariñ àdduna ak àllaaxira am leen yërmande ci néew di doole yi bàyyi leen comme seen adiya yi geen joxe di bàyyi fekk nit ñi nga xam ñi ngi war a dagg seen tànk ñu war a am problème ngeen bàyyi leen tëb leen dem jox ko sëriñ si li leen dal seen gudde yàlla xam ne gis ngeen seen cere si ak seen xuuxalaate yi ak seen nappaate yi napp yëxe <laughs> fira xaw na dëgg dëgg dëgg Firawna dafa nappoon askanam dafa dafa dafa use seen maan ne leen yéen doo leen dara seen nday du dara seen baay du dara même la sëriñ si def sa famille du dara Firaaw na ñëw teg boppam ne moom mooy dara mooy intellectuel mooy borom xam-xam ba dem ba mu yàgg mu ne yàlla la seen sëriñ si lii day woote ñoom neen yàlla la da ngay gis nit sa sax ñu ne ko yow yàlla nga yàlla yàlla mu d'accord ne la yow nag doo dara doo dara doo dara sa nday du dara sa baay sa famille sa lépp du dara. ba pare nag tiital la nag ay nitam foo waxee rek ñu xoqatal la léegi ñoom léegi ñoom lii lañ taxawee même même ay firawna yu taxaw lañ wallahi suma wad si si si lu ma leen wax xeeb naa ko du nii nit seen titalaay seen xoqalaate yi firawna lan yar Moussa lan yar Moussa ba mu génnee moo toroxal firawna yéen si li leen dal seen dëggut li leen dal seddagul de seen gouvernement système bu bon bi système bu sëriñ si xeex leen loo leen loo leen mënta xeex wa rabbil kaaba bu dee yéen a ngi gëm lii ba tey ci torox tànge rek ngeen di dëkk te di ngeen a dimbali seen bokk taalibe doo leen dimbali seen bokkal taalibe sëriñ ba ngeen di dem dimbali sëriñ ba namul dara waaw daa noonu yàlla teg siraatal mustaqim daal mbokk taalibe daal li ma leen di wax ngeen use seen maa fi mu toll damay dawal te li may dawal xam naa ne du ma mënati wax sama gars yi nekk leen si jàmm incha allah xam naa ba ci kanam man ak Baye Ousmane Dramé dañuy def benn live incha allah ngeen teewe ko salaamaaleykum wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu rabbi isahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk sénégalais yi nuyu naa leen di leen siyaare te jaamu seen mbokk la Medoune Diop wa tawaasaw bil sama gars yi ngeen partagé ngeen partagé bu baax mu yaatu yaakaar naa ni nag dafa jot nag Sénégal nag comme mbërum làmb yi ni ñuy toogee di wax waaw di expliquer ak ñeneen ak ñeneen toog di wax seen bopp ñun nag dafa jot nag ñun tamit ñuy wax suñ bopp ngeen ñuy partager di ñu déglu ndax man damaa seetlu comme activiste malien yi ak ñeneen ak ñeneen maanaam bu ñuy def ay live wala dara da ngay gis ay 3000 personnes taxaw di leen seetaan mais ñun ñii tey nga xam ne di leen waxal lu am njariñ ci mbokk sénégalais yi man damaa mënul comprendre pu demagoo leen ñun ñii tey ku ci wax ba am deux cent personnes di la seetaan jàmbaar nga. war ngeen xoolaat seen bopp ngeen ubbiwaat seen xel dama ni leen partager ci sot la bokk dama ni leen war ngeen jël di ndéggatal nit ñi waxe ñuy dégg ndax li ñuy wax waxi dof xam ngeen ko waxi nit xam ngeen ko. li ñuy wax di leen ko wax li leen di wax luy jariñ Sénégal loo xam ne pour seen intérêt la yéen ñuy bàyyi sunu yite ñuy dagg dara ci sunu temps temps dafa seer. ndax ku dem ba